asalaamaaleykum mbokk internet sunu gaal ban ak bànneex tey laayam di dalal ki nga xamante ni kenn dootu leen ko présenté xam-xam màcc lool si wàllum faju cosaan ak aar fii sunu réew ak biti réew mooy Ousmane Segnane Ousmane Segnane fii si Cambérène maanaam Tali Ndiaga Mbaye Ousmane balaa ñuy dugg si laaj beeg tool bi dañ lay bàyyi noonu askan bii la suivre sunu gaal ban kan Cheikh bi asalaamaaleykum. aleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi wax ne alhamdulilahi rabbil alamin wala xaqibatu lil muttaqin wala udduwaan ila salimin wasalaatu wasalaamu ala rasulina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa ala taabiin wa taabiin bi ihsaanin ila yawmi ddin bokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu bokki réew mi yëpp di nuyu bokki bitim réew di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ñëpp di leen di leen sant bu baax ci dalal bi nga xam ne dalal ngeen ñu ko mm-hmm. waaw. jërëjëf Ousmane Sagnane ñooy am na solo lool tey ñu dem si wàllum laaj beeg tontu mooy wàllum listixaar ak ñaan yàlla moom moom dégg da ciy dox bu baax a baax a baax listixaar ak ñaan yàlla. waaw wàllu listixaar ak euh, ñaan yàlla dañ ci euh, yëngatu bu baax a baax. Mm-hmm. Euh, ñu bari di ñu ci seet si. ñu leen di ñaanal. Mm-hmm. Euh, dañuy istixaar comme képp koo xam ne am nga itte soxla pour ñëw ñu xoolal la sa mbir hmm. ndax dundu doomu aadama hmm. dafa làmboo maanaam nit ki toujours fu mu toll dafa war a xam lan mooy mbiram euh, su ko defee boo xamee lan mooy mbiram hmm. mu mun a euh, taxaw ci bunt yooyu noonu pour xaajoom faju loolu mooy mbir mi daal. waaw. Mhm. jërëjëf usmaan Sagnang ko loolu am na solo lool sëñ bi ñu dem si wàllum jigéen ji nga xam ne ndeysaan dafa bëgg borom kër borom kër ko lool baa góor tamit bi nga xam ne dafa bëgg soxna soxna ko lool baa jigéen ji nga xam ne tamit dafa bëgg am doom doom tëkk lool loolu moom da ko si saafara bu baax a baax a baax. waaw loolu moom incha allahu taala loolu hmm. yàlla may nañu ci bu baax a baax hmm. ci. Euh, jigéen ji nga xam ne doom daf ko të. Mm-hmm. Euh, wala góor gi nga xam ne doom daf ko të. Mm-hmm. Euh, loolu moom incha allah juróom-ñaari fan rek. Mm-hmm. la ñu. la ñuy ñaanal yàlla ci képp koo xam ne ni am na jafe-jafe boobu euh, ba nga xam ne ni yàlla dina ko may doom euh, su fekkee ne ci jigéen boo xam ne tamit euh, borom kër daf ko të danañ koy ñaanal yàlla ci juróom-ñaari fan rek incha allahu taala ba yàlla may ko borom kër su fekkee tamit ci wàllu góor goo xam ne nii borom kër tamit daf ko të dañ koy ñaanal yàlla moom it ci juróom-ñaari fan ba yàlla may ko soxna ndax ci wàllu soxna ci góor gi nga xam ne dafay bëgg soxna mu jafe wala wàllu jigéen ji nga xam ne dafay bëgg borom kër euh, mu jafe léeg-léeg dafay am ay gàllankoor yu ci laxasu yu bëree bëri muy ci wàllu rab dana ciy nekk waaw wàllu rab dana ciy nekk euh, danay bëri daal lu ciy laxasu waaye ku koo xam ne am na jafe-jafe boobu su ñu xoolee li nga xam ne moom mooy mbiram. Mm-hmm. Euh, ba xam lan mooy gàllankoor bi. Mm-hmm. incha allahu taala ñun am nañ ci ay yoon yu bari yoo xam ne dinañ ko ciy jaar. Mm-hmm. Euh, muy lu loo xam ne lu ñu yàlla may la. Euh, ñu dimbale ko ci ñaanal ko ci yàlla. Mm-hmm. ba nga xam ne ni yàlla dina ko may loolu nga xam ne ni moom moo ko jëfe woon. dëgg la dëgg la jërëjëf Ousmane Seye loolu am na solo loolu waaye Ousmane du ma dugg si laaj yi continuer te laajuma la li nga xam ne wàllum ñaan yàlla moom loo ci dugal loolu doon la am am loolu loo ci dugal. Euh, sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci laaj bi. laaj bi am na solo loolu macha allah. ñu ngi la ci sant bu baax di la ci gërëm euh, ñun wàllu ñaan yàlla li ñu ci dugal euh, ñun euh, dañoo juddu ñu yóbbu ñu ci daara ñu jàngi ñu ngi jàngee ci daara bu bu ñuy wax daaray kokki waaw daaray kokki fa lañ jàngee fa lañ jàngee yàgg fa lool bàyyeekoo fa jàng wàllu lasar Euh, ba sori ci lool yàlla may ñi ci wax dëgg yàlla euh, comme nim ci mayee ñu bare bari mm-hmm. euh, ñu gé jot nañoo génn réew mi sax mm-hmm. dem ba fu mel ni Gàmbi tamit jàng yenn xam-xam waaw am na wàllu lasraar lu bare bëri jàng nañ ko mm-hmm. Gàmbi waaw loolu daal moom am na dëgg la dëgg la jërëjëf sëñ sëñ bi ñu dem ci wàllum këyit man ki nga xamante ni ndeysaan dafa bëgg këyit loolu mu tëgg loolu loolu même bu fekkee tamit nekk na bitim réew tamit këyit tëgg ko lool loolu dañ ciy saafara dégg naa bu baax a baax a baax. waaw euh, wàllu këyit. Hmm. Euh, loolu ñu bari dañoo am jafe-jafe ñoo xam ne dañoo nekk ci bitim réew am na ñoo xam ne ñu ngi def euh, bitim réew lu mat euh, fukki at. am na ñoo xam ne daf nañ bitim réew lu mat ñaar fukki at. Euh, la leen téye ci réew ma. mooy wàllum ñàkk kayit. waaw ñàkk kayit moo leen fa téye. mu sonal ñu bëri ñoo xam ne bi ñu fi bàyyeekoo ñu ngi am ay soxna. ñoo xam ne bi ñu fi bàyyeekoo seen famille ab bëri nañu ñu fi bàyyi woon te ñu bëree bëri euh, nekkatuñ fi sax seen ginnaaw. Euh, ñu bëgg ñëwaat ci réew mi lool mu jafe. Euh, waaye ñun dinañ ci ñaan yàlla ci lu gaaw a gaaw a gaaw pour yàlla may la kayit. waaw ñun dinañ ci ñaanal nit ñi. lu bare bari. Mm. Euh, ci ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe kayit. Mm. Euh, ndax man ki ma ci mujj ñaanal rek mu mm. nekkoon Espagne fii. waaw euh, def na Espagne fukki at ak benn. yàlla def mu am jafe-jafe kayit ñu boole ko ak man. biñ ko booleek man. ñu ñaanal ko yàlla biñ ko ñaanalee yàlla. Euh, mu am kayit ci loo xam ne matut sax weer. waaw loolu moom ñu ngi ci yëngu bu baax a baax. jërëjëf sëñ bi kooku mooy Ousmane Sène am xam-xamam màcc lool ci wàllum faju cosaan ak aar fii suñu réew nag ak bitim réew ma téléphone yooyu affiché ci baarakaram mooy numéro mooy 77 385 60 96. ma bamtuwaat la ko 385 60 96 baa nga jot si numéro bii mooy tigo whatsapp bi mooy 76 492 22 42 492 22 40 seen bi ñu dem ba léegi si laajte yi mooy wàllum tëli tëli bi nga xam ne ndeysaan doon na feebar bu complexe boo xam ne mi ngi lëmba dëkk bi loolu loolu da ngay gis ku ko jànkoonteel sax pour mu ñëw jooy a baax waaw ci wàllu tële dinañ ci yëngatu bu baax. Mm. Euh, ndax loolu euh, dafa nekk loo xam ne lu sonal nit ñi la. Mm. Euh, sonal na nit ñi lool muy wàllu télé. wàllu rab dana koy def. Mm. wàllu lekk yi nga xam ne danañ koy lekk. dana koy indil nit ñi muy jafe-jafe yooyu tamit ci wàllu lekk bi ak wàllu rab dana koy def mhm. euh, waaw mhm. waaye moom ñu ngi ciy wax euh, képp koo xam ne yaa ngi seetaan rek mhm. euh, ñu ngi la ciy wax ne la loolu yàlla may nañu ci bu baax a baax ci wàllu télé bépp télé boo xam ne nii maanaam du judduwaale rek mm-hmm. ñun yàlla may nañu ci ba nañ koy faj ci lu gaaw a gaaw a gaaw mm-hmm. euh, biñ ci mantu faj rek moom mooy judduwaale waaw euh, ku tëlee am lu mat fukki at mm-hmm. wala fukki at ak nàngam moom suñu yàlla boolee rek mu ñëw ci ñun seet ñu danañ ko faj ci ay fan yu néew incha allahu taala yàlla may nañu ci bu baax a baax a baax ba kii bi du doon loo xamante ni maanaam day ay calmant lay doon maanaam day yëg boppam dem ba ci biir dootul yëgati boppam <laughs> déedéet ñun ñu ngi liggéey ci alxuraan euh, alxuraan yàlla moo ko wax mu ne alxuraan ji bàyyiwuñ ci dara maa faran naa fi kitaab min shay'in alxuraan ji bàyyiwuñ ci dara hmm. euh, yàlla mi nga xam ne moom moo ñu wàccal alxuraan hmm. alxuraan nekk suñu njëriñ euh, moom yàlla moomu moo xam alxuraan ba tax na lim ci wax ne bàyyiwuñ ci dara lépp a ngi ci hmm. kon alxuraan euh, loo ci xam ak loo ci xamul rek moo ci nekk waaye lépp loo xam ne nii euh, doomu aadama dana koy ittiwoo rek mm-hmm. soo demee ci alxuraan rek danga ko fa fekk. waaw jërëjëf kooku Ousmane Sëñ am xam-xamam màcc lool sëñ bi dañuy dem si wàllum maanaam wàllum euh, kii nu mu tudd kaaraange kaaraange moom tamit moom kaaraange loo ma ci mën a wax kaaraange. waaw wàllu kaaraange sëriñ bi. Mm-hmm. moom it euh, wax dëgg yàlla danañ ciy liggéey. Euh, danañ ciy liggéey lu yaato yaatoo yaatu. ndax kaaraange. dafa baax. Mm-hmm. Euh, surtout ku bëgg ubbeeku. waa soo bëggee ubbeeku dangay am amaale lu mel ni kaaraange. ndax kaaraange boobu noonu. Mm-hmm. moo lay dimbale ba. Euh, nit danay ubbeeku ba pare euh, ca gannaaw ubbeeku go loru tegee ci kawam euh, te la koy indil loraange mooy hmm. ubbeeku goo xam ne nii dafa ubbeeku te amul kaaraange kon nag su ubbeeku amee hmm. kaaraange dafa war a am te danañ ciy liggéey ci wàllu kaaraange bu baax a baax a baax liggéeyal liggéey yoo xam ne nii tey soo ko jëfandikoo yàlla dana la ubbi hmm. te da nga aaro ba xam ne ni làmmiñ du la mën a yàqal euh, te nit du mën a jog def ci yow pour mën laa yàqal waaw loolu ñu ngi la ci wax loolu bu baax loolu am na solo mais Bayra Place moom Bayra Place ki nga xamante ni ndeysaan dafa bëgg a place am am ay di dégg maam lépp lu muy yëngatu maanaam nekk ci lépp am ci Bayra Bayra moom loolu moom da nga ciy yëngatu tamit bu baax a baax bay waaw wàllu Bayra dinañ ci liggéey bu baax a baax a baax euh, danañuy liggéey ci wàllu Bayra bu baax euh, Bayra Euh, ndax place euh, mun naa am lu nekk. mën nañ fa jaay lu nekk. waaye place ba bu amul bayre mhm. euh, njaay ma mën naa ñàkk a demee noona kon wàllu bayre place boobu. Mhm. ñun danañ ciy liggéey loo xam ne nii suñ ko defee ci place ba. su fekkee lu ñuy jaay la. Mhm. dana gaaw lool lool lool lool lool ci. dina gaaw lool. dina gaaw lool waaw dina gaaw lool lool sax. sëñ bi dëgg la loolu am na solo lool man dégg nii nag dégg naa yaa ngi ay jaaro yu doy waar yooyu liggéey yooyu yooyu liggéeyal doomu aadama yi mais jaaro yooyu moom ci lan lay dox. waa jaaro yi dafay dox ci wàllu wërsëg. wàllu wërsëg waa ci wàllu wërsëg la jaaro yooyu du dox. Euh, moom mooy comme jaaro yi nga xam ne moom laa takk nii. Mm, dafay dox ci wàllu wërsëg dafa am lu ñuy liggéey. Mm-hmm. dugal ko ci biir. Euh, am lu ñuy siikar. Mm-hmm. suñ ko siikaree. Mm-hmm. incha allahu taala jox la jaaro bi nga takk ko. Euh, soo ko takkee rek incha allah da nga gis li taxawoon ñu wax la na la loolu la ci la ci loolu la jaaro yi di dox waaw boo ko takkee rek incha allahu taala da nga gis moom wax dëgg yàlla li tax eh, jaaro yi di jóg da ko gis incha allah jërëjëf kooku Ousmane Sagnane xam-xamam màcc loolu si wàllum faju cosaan ak aada képp ku ko bëgg a jot da nga jot si numéro yi ma leen wax léegi mooy affiché si noonu ci baaru écran mooy 77 385 60 96 ma bi numéro bi mooy whatsapp bi 76 mooy bi 492 22 42 sëñ bi xam naa waxtu bi léegi mu dem mais du ma dem te laajuma la wàllum pétrole bi nga xamante ni lu mel ni dëkk bi loolu coow li bari loolu mooy wàllum pétrole bi mais pétrole bi moom bu ma la doon wax lan ngay joxe conseil moom ci wàllum pétrole bi. waaw euh, sëriñ bi wàllu pétrole bi. Mhm, euh, duñ ci mën a ñàkk a wax ndax comme laaj nga ñu ci. te ñu. Euh, dëkkee réew mi dëkkee ci biir réew mi comme ni fi ñëpp dëkkee te sañ-sañ bi fi ñëpp am lañ fi am. Euh, ñun euh, dañuy oote jàmm. Euh, ndax dañoo nekk nit ñoo xam ne ñëpp ñuy soxla. ñëpp ñëw ci ñun. te wax dëgg yàlla ñu ngi def ak yow émission bi yi nga xam ne nii. ñëpp koy seetaan kon nga waxtaan ceeg nit ñi hmm. delloo si leen ci hmm. wàllu pétrole bi dafay am solo lool lool lool hmm. wàllu pétrole bi nag wax dëgg yàlla ñëwagul commencé guñu ko exploité. Euh, waaye dafa mel ni coow li bëri na lool. ñu ngi oo bépp sénégalais boo xam ne nii euh, mu ngi dëkk ci biir réew mi. ak nga nekk ci bitim réew ñu ngi lay oo ci dal. Euh, ndax dal ci la lépp nekk. Euh, wàllu pétrole bi luñ mun a waxtaanee la. ba nga xam ne nii danañ xam ni nga xam ne nii noonu la génnee. ak noonu la ko réew mi di jëriñoo. su ko defee dal am. Mm-hmm. moo gën. lu dul dal moo gën lépp lu dul dal ndax soo xoolee euh, soo gisee may gën a oo Sénégalais yi ci jàmm pour ñu gën a góor góorlu ci jàmm ma leen ciy ñaax bu baax a baax a baax mm-hmm. euh, ñu def ndànk ci wàllu pétrole bi ku ci nekk ànd ak xel mm-hmm. ku ci nekk ànd ak dal mm-hmm. euh, te xam ne Euh, lii yàlla moo ñu ko jox. waaw. Mm-hmm. comme yàlla moo ñu ko jox nag. Mm-hmm. Euh, ñun war nañoo am suñu xel moo xam ne nii. Mm-hmm. Euh, war nañoo mën a dal ba nga xam ne ni danañ ko saytu te benn jafe-jafe du am. réew mi bi mu sosoog tey yàgg na. yàgg na te. benn jafe-jafe mu fee am euh, dégg nañ réew yu bare bare bare ci euh, lu nekk euh, waaye Sénégal yàlla dimbali ñu ba nga xam ne ni kenn dégguñu ci dara kenn dégguñu ci dara wax dëgg yàlla suñu mag ñu baax ñi fi nekk def nañ fi ay ñaan def nañ fi ay ñaan bu baax a baax a baax ba nga xam ne ni ñun suñu ñoo dégg ci dara. Mm-hmm. kon pétrole bi rek warul mun a ñëw rek mm-hmm. soppi ñu. Mm-hmm. bu mu ñu soppi ci dara. lépp mun nañ koo waxtaanee. mu jeex ci jàmm incha allahu taala. loolu ñu ngi ciy woo bépp sénégalais ñu ngi suñu bopp. di ci woo bépp sénégalais. Euh, ndax loolu mooy jàmm. waaw ndax euh, dama gis euh, réew yu bëree bëri ci àdduna bi. ñu ngi nekkoon ci guerre. mais gannaaw boo génnee ci guerre. Mm-hmm. da ngay toog lu ma juróom fukki at yoo xam ne nii. Mm-hmm. maanaam dootoo mën a defar sa réew. ndax guerre li muy def ci réew. Mm-hmm. Euh, moom kenn mëntu wax. maanaam dayo ba euh, kon nag su loolu amee mhm. euh, ñun ñi nga xam ne tey euh, yàlla dimbali nañu pétrole feeñ fi mhm. amaana sax exploité guñu ko kon war nañoo mën a ànd ak dal comme ci ni ma koy waxee rek mhm. ba nga xam ne ni lépp dana yemb te dara du am ci réew mi jàmm rek ay am ci réew mi dëgg la jërëjëf Ousmane Segnam loolu am na solo loolu di ngeen kàddu yi mu wax ci pétrole bi sell loolu xam na xëy na waxtu bi peut être def nañu lan ngay tàggatoo mbokk yi doon suivre Sunugal 24 point la. ñu ngi euh, santaat yàlla beneen yoon di julli ci yenentum bu tedd bi. Euh, di julli ci yenentum bu tedd bi bu baax a baax a baax. Mm. Euh, di leen sant ci. dalal bi ngeen bi ngeen ñi dalal nii ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm bu baax a baax mm. di leen ñaanal yàlla yàlla yëkkati kër gi kër gi gën a kawe lool mu dem ba am ay télé dem ba am ay rajo ñu leen di ñaanal yàlla lool bu baax a baax a baax a baax di sant bokki Sénégal yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan di sant bokki bitim réew yi nga xam ne ñu ngi seetaan ñëpp euh, di sant képp koo xam ne mu ngi ñuy seetaan ak foo mën a nekk rek ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla bu baax a baax a baax di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu